nag alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala ashrafil mursalin Mouhamad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbi bu ko tey dañ ñëwoon fii si école Clémenceau def si fi benn waxtaan ci lu aju ci wàllu yar yar bakkan ci coordination des jeunes musulmans bi nga xam ne moo nekk dakaar fii wax ci solo yar que yar moom mooy li jox nit dayo ndax du yàpp bi ak deret bi ak yax yi jëmm bi rek mais li ko jox dayoo ak tolluwaay ci borom bi mooy yar bi muy am ndax bu amul yar boobu day niroog bàyyi ma niroo la ko bàyyi ma sax tooñ bàyyi ma la ndax nit am na xel te bàyyi ma bi amul xel loolu yàlla joxoon si jootu Araaf si aaya boobu ñu jàngoon sànq si wala qad zarana li jahannama kasiran min al jinni wal ins ndax lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wala hum azanun la yasmauna biha mu ne ulaayka kal an'am bal hum adal ulaayka humul ghafilun kon cër yi yàlla jox nit pour mu mën ci xamee yàlla mën ci jàngee yàlla mën ci gëmee yàlla mën a toppa yàlla bu fekkee ne jëfandikoo ko pour loolu dafa mel ni jur mu ne niroo leeg nit ak jur sax da ngay tooñ jur parce que jur yàlla jox na nit loo xam ne joxu ko koto mooy xel mi ñu jël benn misaal ci kenn koo xam ne ku yar woon la yaroo ci kër Abdoulaye ibnu Omar muy Omar ibnu Abdul Aziz mi koy wax juróomeelu bi ci yar bi mu amoon ci euh, njàng ak jàngale ak ndomba tànk yi mu amoon yëpp ba mu gi ñi daan jàng ni mu doon jàng ci ñoom nekk ay ndongam mu leen di jàngal wax ci jikkoom ci wàllu sellal bi nga xam ni léeg-léeg mu bëgg a def dara mais ragal ndomba tànkam ak dayo bi ko nit ñi di jox tax mu jur leneen mu bàyyi ko ci wàllu wax wala yu demee ni ki noonu mu nekk sellal digganteem ak boromam wax tamit ci wàllu lu jëm ci fukk lu mu doon fukk lu bi ba sori lépp loo xam ne alal jullit ñi la du ci tax du ko laal digganteem ak soxnaam digganteem ak soxna euh, euh, doomam digganteem ak euh, alal jullit yi nga xam ne dañ ko doon indil ak wàccee boppam bi mu wàccee woon boppam ba nga xam ne lu mu mënoon defal boppam du ko sant kenn moo koy defal ba mu taxawee pour mu fay wala lamp bi ñu muri ko mu jóg defal ko boppam nit ñi ne ko xanaa mënuñoo woon sant ñu def ko mu ne man man la ba tey parce que jog naa dem fay ko wala muri la ci muuroon dellu si naa ba tey man la Omar ibn Abdul Aziz ak ni mu doon fàttali koo dee ba nga xam ni bewul woon yëkkati woon ay mbagam nekkul woon koo xam ni dafa lekk alalu askan wi nekkoon ku jub ku maandu ku dëggu ku wóor tegoon àllaaxira ci kanamam ak lam fay am tax mu am lu mu amoon kon loolu dafa war a nekk loo xam ne mbind la ñu war koo jël ci dundam mu ñu war koo dund suñu kër yi sunu soxna yi suñu njaboot jàngal ko société bi parce que loolu lañ gën a soxla tey ndax base développement yëpp ci yar la lu ñu mën a am te yaruwuñu tamit du sotti lii moo nekkoon li ñu fi indi tey lii moo nekkoon waxtaan bi si tënk waa wa naa daawaana ani alhamdulilahi rabbil alamin nit nag loo xam ne day ñëw te xamoo kañ lay ñëw naka lay ñëwee soo koy sóoraale day tax li nga war a def doo ko tardeel te nga mën ko def léegi doo ko tàrdeel loolu ci wàllu tarbiya la benn jigéen dafa ñëw jóge Kuufa ci Iraq am lu mu soxla ci moom mu ne ko demal ba ngoon ndaw si bi muy joxe ginnaaw pour dem xelam dellu siwaat mu ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal sama soxna li nga wax li nga soxla nga wax mu bind ko mooy li ma doon wax léegi xam nga dem na nee na ko demal ba ngoon mais xel mi dellu siwaat na que ni ngoon est-ce que wóor na ni moom dina fekkee ngoon est-ce que wóor na ko ni euh, rendez-vous bu mu ko jox dina ko te mu te loolu war na koo mën a def léegi mu woowaat ko mu ñëw wax soxnaa mu bind loolu ñu mujjeel ñaata minute moo ci des neuf wax nañu Omar ibn Abdul Aziz avant muy nekk wax nañu bi mu nekkee xalifa ci wàllu njàngu xam-xam ci tarbi ah wax nañu bi mu nekkee xale euh, xalifa ci wàllu muraqabatul la fukk lu borom bi subhanahu wa taala wax nañ bi mu nekkee xalifa ci wàllu fàttaliku dee ci tarbiya bi juróomeel bi mooy bi mu nekkee xalifa ba tey ci wàllu loo xam ne mën nañ koo jàngat ci tarbiyaam mooy wàccee boppam wàccee boppam suufal boppam wanewul benn yoon fenn may président de la république may gardien de la constitution maay maay maay yooyu yëpp daf ko jéem a effacé parce que comme ni ñu ko waxee sànq nit mën na toll fenn ci xam-xam kii mooy diw kii mooy diw fii la toll ci xam-xam lekk-lekk loolu mën na koo jural yëkkatiku mën na toll fenn ci am-am kii mooy diw kii mooy diw lii la am loolu mën na koo jural ak yëkkatiku rëy na toll fenn ci ndomba tànk kii mooy diw mooy diw mooy diw loolu aussi mën na koo jural yëkkatiku te loolu yëpp benn baaxu ci ci bakken moo tax Abdul Omar ibn Abdul Aziz yooyu yëpp daf ci doon bàyyi xel ba tax na yar bi nga xam ne moom la yaru wala yar bi nga xam ne moom nañ ko yar mu am tarbiya bu baax bu jub en tant que président de la république nga xam ne mën na toog fi mu toog di joxe ay instructions defal lii defal lii defal lii bàyyi lii bàyyi lii mais melul woon noonu daawul def loolu lu mu mënoon defal boppam moom mooy jóg defal ko boppam donte am na ñu toog ñoo xam ne mën nañ ko koo defal mais du leen wax defal leen ma lii mais moom moo koy defal boppam. benn bés mës naa toog ci biiroom fi muy liggéeyee ay jullit ñëw soxla pour waxtaan ci ak moom. guddi la ñu taal làmp bi bi ñu taalee làmp bi noonu am loo xam ne dafa ñëw tegu ci làmp bi muur leerul torop moom fi mu toog comme ñun ni ñu toogee nii ñële ñu ngi toogee ne la ñoo ko gën a jege mu jóg fi mu toog wër leen dem teggi li ci nekk mu leeraat mu ñëw toogaat ñu ne ko subhanallah yaa amiral muminin yaa xalifatal muminin yow xalifa bi yow amirul muminin xanaa doyu la woon rek nga ni kenn ci ñun demal yëkkati li nekk ci làmp bi pour mu leeraat mu ne ko maa dara nii li ma def lan la ma wàññi qumtu wa ana umar ibnu abdul aziz wa rajaatu wa ana umar ibnu abdul aziz jóg naa dem yëkkati li nekk ci kaw làmp bi mais man maay umar ibnu abdul aziz lan ma wàññeeku ci man dellu si waat naa sama place toog même man la amul wàññeeku ci man billahi aleykum sama genre gi tey sama genre gi naa jël exemple ci man nu ñu mel Adama bu nekkee sama wet Omar nekk sama wet Youssou gars yi nekk sama wet ak yu mel noonu soo moytu damay toog rek tàllal sama tànk mais booy <laughs> tagal caay bi <laughs> voilà booy dawal booyul fourne bi indi affaire yi booy yow voilà defal lii ba may teg na mu ne oustaz oustaz ma ne waay waay oustaz may man man maay cheikh bi loolu tarbiya la non du tarbiya yonent saa salaam dem nañ ci àll bi am lu ñu jàpp war a rendi rendi ko kii ne man maay fees kii ne man maay def nangam ak nangam yonent bi ne mais kon man may taxani wala man maay taxani am na lu ma war a def man man taxan taxani c'est-à-dire bul tollu fenn ba jàpp ni man dama nekk ak samay xale wala nekk dama nekk ak samay ndongo wala dama nekk ak samay rakk voilà xoolee leen benn bëtu man maay seen supérieur ba ñoom ma toog croiser les bras ñoom ñuy def man ma ñàkk a def ci yar bi dafa war dañ ma war a gis may jóg di dem di ñëw loolu am na leneen lu muy def ci ñoom am na leneen lu mu leen di yokk ñoom tamit bu ëllëgee noonu la ñuy incarner seen kër loolu la ñuy incarner fépp fu ñu mën a nekk yéen soxna yi bu mu leen nax gaa yi léeg-léeg tarbiya bi ñuy am nga nekk ci biir kër gi xale bi jooy nekk ci toilette yi mu war a kii mu mu raxasal la ko indil la nga jàpp ne waaye sama waa ji fii laa ko téye non tarbiya bi la jàpp ne nii am na leneen loo jàpp voilà moom mën na la jàppale mën na la jàppale dem na def ko xale bi après mu ñëwaat lan la ko wàññi lan la ko wàññi lu mu wàññi ci moom nga tëdd nelaw moom yeewu na bëggaatul tëdd mu tàngalal la ndox indil la kafe bi indil la meew bi tegal la defal la meew bu doy parce que xam na sa goût defal la kafe bu doy defal la sa mburu li nga bëgg mu nekk ci ne la chéri kooku kay kay ndékki da ngay jàpp ni suba su ko deful nga ne lu tax tàngaloo ma ndox lu tax tegaloo ma ndox c'est-à-dire la bëgg jàngal rek que ni ñoo nekk kër gi ñoo bokk ci kër gi nit model lay doon ci këram wala du doon modèle quartier jàkkam société am société bi yëpp fu mu mën a nekk modèle lay doon exemple lay doon parce que melkaan boobu moo tax tey mu nekk modèle nekk exemple ba ñuy jël ay leçon ci wàllu tarbiyaam yoo xamee ne pour mu mën ñoo njëriñ kon na jiitu si ñun ñi nga xam ne dañ fi nekk ay couple si dund bi ñu bàyyi xel ci loolu ñu nekk gël ay couple bu ëllëg bu leen yàlla wër wërsëgalee loolu ñu nekk loolu